Uh. naan bikum ceeb wàññeeku na Sénégal diwlin wàññeeku na suukar wàññeeku na mburu wàññeeku na diwlin wàññeeku na ciment wàññeeku na njiiti réew mi Bassirou Diomaye fay ak usmaan Sonko ak seen gouvernement la ñu digoon askanu Sénégal mujj nañu ko def la Soleil yéen a kaay ñu ko xamal si du quotidien dëggal ko ne gor ca wax ja fañ koo dige woon moo taxi def nañ ko réew mi yéen a kaay ne faalan di wax benn bu nekk lan lañ ca wàññi yow seetal kilo suukar fañ caa wàññi fukki dërëm liitaru diwlin fañ caa wàññi ñaar fukki dërëm kilo ceeb ordinaire fañ caa wàññi juróom-ñetti dërëm miisu mburu bi fañ cee wàññi quinze francs vingt-quatre heures yéen a kaay na ko faala ci yokkal ndax faay bañ nga fàtte ko ciment fañ caa wàññi ñeenti téeméeri dërëm ci benn ton bi yéen kaay bi ne ah dëgg-dëgg li Sénégal ay doon xaar gaa yi def nañ ko bés bi yéen a kaay waaye faa leen di fàttali buñ tabaskee ba pare maanaam fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii ci la ñu tàmbali jëfee njëg yu bees yi muy prix yi l'observateur ne ñii daal gi nga dalal sénégalais yi rek la bés bi yéen a kaay na fa ñoo wàccee tension yi critique yéen kaay ne ñii kay fi ñu leen doon xaar ak li ñu def fa wuutee ndax wàññi gi ñu wàññi du dara waay tur wàññi rek a fi nekk turbine yéen a kaay ne faa bëgg ngeen toj yax bi jaar leen ca digg ba xam nga luy dëgg mooy ñii li ñu wàññi doyu dara faju dara ndax diwlin gi cinq benn dërëm lañ wàññi ci liitar bi miisu mburu quinze ceeb moom boo ko seetloo sax fa mel fañ cee rawatina boutique nga xam ne ñoo yore marché bi ñooñu yéen a mel ni ku naan turbine ak yeneen yéen yi su fekkee dëgg rek la ñuy wax état bi moom wàññi na te lii ñu def nii fay dëfal askan wi nga xam ne góorgóorlu yi fa ñoo ci dund gu gi kon lii ñu def baax na man bokkuma ak yéen xalaat de teral yéen a kaay na wax dëgg yàlla gouvernement bi coppite gi lañ waxoon def nañ ko te mooy wàññi nañ info yéen a kaay na ko faa ci yokk leeralal leen ñi nga xam ne fa wax naan nguur gi wàññiwu dara xanaa xamu leen lii mu wàññi a wàññi a njëg yi buñ ko tàmbalee jëfee boutique yëpp commerçant yëpp fañ koy jëfee fañ koy nangu lu ko mooy yoon fay dal seen kaw turbine yéen kaay mel ni ku naan su yeboo ngeen dal ci kaw gaañi ndax jaaykatu mburu yi ñoom seen mbootaay gi këleen jiite Amadou Gaye fa wax ne bala ñoo mën a wàññi njëgu mburu mi faaw dañuy wàññi njëgu fariñ gi ba pare le soleil yéen a kaay ne mbootaayi boutique yi ñoom ne nañ d'accord nañ ci wàññi gi te fa wàññi waa inaakawaa yeesal ko mooy wàññi nañ dund gu cher gi mooy jëwri jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd ak moo waroon a wax sénégalais yi wàññi gi ñu wàññi ndax moom la dénk njënd ak léegi moom waxut ko ñu dem jox ko secrétaire gouvernement bi moo ko wax loolu faa gis na wartoon a demee noonu ñaareel ba conseil national de la consommation ñoom laajuñ leen ci yëf wàññi gi seen xalaat la ca gën garaaw nag mooy direction commerce intérieur ñoom tamit boolewuñ leen ci wàññi gi laajuñ leen ñoom seen xalaat leer la neen leer ba yegg ca naan ñi ja moo ne njiit réew mi jël na ko joxaat ko yeneen promoteur ko askan wi jëfandikoo ko bés bi a la mu xam ba wax ko naka la ñuy fexe ba saafara jafe-jafe gis na mooy pexe ci wàllu wi ni mel ma ngi ko waxee ca direct news la mu ñu wax moom la regard yéen a kaay mooy fi mu toll nii état bi fay lukkat di rëbb téeméeri oto yoo xam ne ca pale ba lañ nekkoon waaye gars yi fañ ko sàcc fa réer mër fi toll nii ñañ ko joxoon ñii fa ñoo bañ a delloo yeneen oto yi kenn xamul fu mu dugg waaye gaa ngi koy wër de si du quotidien moom fa ñoo xamal laneen lu baax loo xam ne président Diomaye Faye ak Sonko seen gouvernement bi fañ koo def yow seetal xam nga état bi rawatina bi Macky la nekkee président fa ñoo yoraloon bor bu bari fukki milliards ak juróom hôpital yeeg barabu fajukaay yi ci Sénégal si du quotidien nag nee na Bassirou Diomaye président fay na leen fukki milliards léegi juróomi milliards rek la leen desal ni ki démb lu baax na révélation yéen a kaay mel ni ko président la am ca centre Talibou Dabo du jàmm de war ngaa dem lijjanti ji ko prestataire ña ngay sàkku ñeenti weeru salaire yoo xam ne fayuñu leen tàggat yaram euro 2024 ca tubaab ya tey lay tàmbali bu 19 heures jotee Allemagne mooy bal ak Écosse record yéen a kaay ne Angleterre nag ak France boo moytul ñoo nar a jël kubba de ñiy jël alalu jàmbur sàcc rawatina ci jamonoy tabaski ji fi mu toll nii fa bari ba jégg dayo l'observateur fa xëy jox kàddu ay nit ñoo xam ne fa ñoo yeewoon seen xaru tabaski ñu sàcc ko seen yaakaar tas xam ñoo xam ne nag fa ñuy jaay xaru tabaski terewut fañ leen di sàcc seen xar yi te loolu baaxut lu métti la benn paa ci yéen bi nee na man sama xaram tabaski mi pour ma moytu ñu sàcc ko xam nga nan laay defam faa jël dugal ko sama biir néeg bi ko ba ca salle de bain ma tëj ko fa foofu xanaa sàcc du fa yegg de fooy gisee xar ma